أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi danañ jël tey juróomi aaya aaya 37 38 39 40 41 juróomi aaya yi nekk sunu kanam dinañ ci jël ay bind ay njàngit yoo xam ne mooy durusun mustafada min al ayat lan la ñuy jëlee ci aay yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala di ñu ko jàngal di ñu ko leeralal ci téereem bu màgg bi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala wax ji mu ñuy wax bis bu nekk dafay jaadu ci ñun ñu koy déglu di ko dégg te di ko jëfee tey ay nekk sunu kanam tomb bu njëkk buñ ciy jëlee mooy charru zulmi ma kaana kadiban ala allah wa takdiban bi shara'i'i tey li ñuy jëlee ci ay tomb bi ci njëkk mooy bon gi nga xam ne tooñ bon na ko tooñ amul benn bàkkaar bu mu tollool degré bon gi mu bon moo tax yàlla tabaraka wa taala araamal ko ci boppam mu sant jaam yi ñu bañ ko defante seen biir mu ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu man seen borom subhanahu wa taala maa leen bind maa leen sàkk maa leen amal maa leen moom maa leen ëpp doole maa leen ëpp kàttan maa leen ëpp lépp waaye duma leen tooñ maadaama duma leen tooñ nag kon yéen jaam ñi bu leen tooñante na ngeen yëg ne tooñ dafa araam seen diggante yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mu ne iyaakum wa zulm maa ngi leen di wattandikuloo tooñ fa inna zulma zulumaatun yowma alqiyaama naka tooñ ay lëndëm la yowma alqiyaam bal yonent bi nee na ñetti nit yàlla du delloo seen ñaan ñetti nit suñu ñaanee yàlla da leen di may ku ñu tooñ ñaari way jur ak kuy tukki ñetti ñi bu ñu ñaanee rek yàlla may leen am na riwaaye bu mu ne ñetti nit suñu ñaanee yàlla daf koy nangu ku woor ak ñaari way jur ak kuy tukki tooñ baaxul moo tax mu ne li gën a bon mooy tooñ tooñ nag ba ci gën a yées mooy tooñ yàlla moo tax tooñ nekk ñett tooñ sa boroom tooñ sa moroom tooñ sa bopp tooñ ñett la tooñ sa boroom boobu ci gën a yées walla yematoo ci tooñ yàlla weddi aayeem yi fenloo ko waaye weddi sharia bi comme démb waa ji ñu ma woon ci sama whatsapp ajaa ngi naan sàngara takk croix hmm? waaye sàngara si muy naan xam ngeen lan la def table bi xam ngeen lan la def table pour teg ci sàngara si xam ngeen ko ñaari kaamilu alxuraan ñaari kaamil alxuraan la teg nii loxoom teg butéel bi ci kaw yor kaas bi di naan te xam nga lu ci ruslu xam nga lu ruslu ci loolu mu daa ji def dafa léttu ku góor la mu léttu mi ngi ànd ak xale jigéen ñu ngi muuru ci ginnaawam mbubb mi mu sol photo sëriñ bi la def fii ci ci wetu wetu dënn bi fii mu def ci photo sëriñ bi ci tarixa yii la bokk yi nekk ci sunu réew mi kon ci réew mi la waajoo ñu nekk waaye xam nga lu doy waar mooy boo nee waa ji kii lu tax muy def li ñu ne day wàññi leer leer gee moom leer gee bari quoi leer gi lay wàññi. Sénégal ku bugg a fo ku ne ci tarixa yi ngay làqatu pour fo ku bugg a fecc ku bëgg a njaaloo ku bëgg a naan sàngara ku bëgg ku bëgg ku bëgg ci tarixa yi ngay laaxu pour def li nga bëgg a def parce que kenn doo weddi kenn du weddi man sama sëriñ bu fekkee dafa ëppal ñeenti jabar su ma naanee sàngara du ma weddi bu ma nee ma ni ko yee wala bu fekkee sama sëriñ day naan sàngara may tux yàmba ñeme na maa weddi am na beneen bu ma yónnee beneen vidéo benn waaye dafa duggoon ci benn tarixa yàlla yàlla mu génn ci muy wax la fa nekk mu ne bu ñu dajee balaa ñuy commencé seen wayoog yooyu waa ji danaan ah def def leen bu sew bi ba pare maa def leen yu sew yi ngeen def ba kuy tux yi demal nga tux kuy naan demal nga naani balaa ñuy commencé am na benn vidéo bu ñu ma yónnee woon jamono yële passé waa ji di wax ak taalibe yi di leen yedd ba ci yàgg mu ne dama leen di laaj yéen ñi ku ciy tux yàmba na nga wax nag bul fen ñëpp jóg taxaw ñëpp kenn desul ñëpp jóg ku nekk naa man de damay tux man de damay tux kenn desul léegi nga gis kon ñun dëgg dëgg dëgg dëgg lan la ñuy dund lan mooy sunu lislaam dëgg dëgg kon lan mooy lislaam mooy dara araamul ku nekk loo neex defal loo def baax na loolu gaa yi naan na xumb te dagan yàlla nee na sàngara araam na ñun ñu ne naan leen day wàññi leer njaaloo da araam ñu ne noo day wàññi leer dara araamul ku bugg a wàññi sa leer rek mën ngaa njaaloo mën ngaa mën ngaa mën ngaa mën ngaa mbokk yi loolu moo gën a yées ci àdduna mooy tooñ yàlla weddi shariam ñaareel nañ jàng tey taqrir fitnatul qabr wa adabi alquran sharia sunu woroom saxal gi mu saxal ne bàmmeel dañ fay mbugal nit bàmmeel dañ fay mbugal nit loolu bu yow ñun ñëpp ñu xam ko bàmmeel mbugal dafa am léeg-léeg nag nit dem armeel yi ñu gas ba mu xóot dugal nit moo am fa ayat ñu ñëwaat di suul kenn ci wetam ñu gas ñu gis waajooju ñu suuloon yax yéeg nangam kenn xelam di sikki sàkk waaw man mbugal bàmmeel bi may dégg moom fi lii lii loolu lu yomb lu yomb lay la mbugalu bàmmeel ak a yomba lay mooy li ma waa ji keroog laajoon ci whatsapp bi mu ne ma est-ce que ay mbugal mbàmmeel am na ay ay nangam yooyu man de vraiment yàgg naa dem ci armée li yàgg naa fële lu nekk kii mais daal loolu daal nan la ñuy mbugalee nit ci bàmmeel ak yomb tontu. kenn ci ñun fii kañ ñun fii moom mës a gént nay gati loxo ku mës a gént ok jërëjëf kañ ci ñun mës a gént moo gént gént bu neex ok kan ñun mos a génn gént boo xamante ne yeewu na ci guddi gi ne la waatut ndax ragal ah gis nga imaginel bis boobu ngay gént gént gu garaaw gu metti guugu nga nekk ci yeewoo goo bi nga yeewoo nga gis ne eh, eh, ndeke man damay nelaw alhamdulilahi rabbil alamin nga ni nii gis lal bi nga ni nii ci néeg bi nga nekk gis nga loolu mooy la ne mbugal yowmal xiyaam bàmmeel dañuy mbugal yaram bi nit day dund ñetti dund day dund àdduna dund barzaq dund alaxira àdduna bakkan moo jiite barzaq ruu mooy jiite yowmal xiyaam ñoom ñaar ñooy ànd moo tax barzaq bu ñuy mbugal ruu bi la ñuy mbugal moo tax yaa ngi ci lal bi tëdd mais xoolal sa ruu moom moo daj lu metti loolu ngay daw di benn waay dafa dem hôpital dañ ko fekk hôpital mu tëdd tànk bi damm xam ngeen waa jooju lan la lan la def ba tànk bi damm dafa tëdd guddi mu gént moom xamul ne day gént fi mu tëdd guddi di gént gént gu metti xamul ne day gént dafa daw jóg ci lal bi daw tëb étage bi daanu ci suuf damm hôpital la ximmilikoo bi mu yeewoo mu gis boppam hôpital tànk baa ngi damm nit ñaa ngi ko wër mu ne lu ma indi fii nit ñi ne ko lu la indi fii ah lu la indi fii mu ne non ma sama kër laa fanaan ah, kaay leen ma wax leen lu ma indi fii bi mu ko nettalee gars yi gars yi toog ci hôpital bi di reetaan ba docteur yi ñëw xam ngeen la la gént yowmal xiyaam mu gént yowmal xiyaam ay oto ngi taxaw di yëpp nit ñi di leen yóbbu àjjana nit ñi naa ngi naan àjjana àjjana nit ñi di yéeg oto yi di dem nee na moom mu daal di ñëw rek yéeg oto bi mu yéeg nee na oto bi di daw di daw kenn waxul oto bi nee na tekk kenn waxul nee na oto bi daw daw daw ba càgg mu mu jaaxle xam moo yegg ne war nañu yegg ndax lii dafa sori mu ne chauffeur mais yow doo yegg nee na chauffeur bi ne at faalewu ma mu toogaat ba càgg mu ne chauffeur nee na chauffeur bi gestu rek muy iblis mu ne muy mu ne ko yow foo ma jëme mu commencé tiit mu ko toogaat rek xamoo foo jëm yow nee na oto bi di daw mu gis ñu commencé bindu safara ñu bind jahannama bind sair turu jah turu safara yi xam nga safara juróom-ñaar la nee na muy gis ay tableau ñu koy bind oto bi daw nee na mu leer ko ne egg na kon jahannama rek nee na mu mu daw ndeke bi mu dawee wàccalal bi dafa topp bunt bi daw tëb étage bi pour rëcc pour moom oto bi la tëb ndeke yoo lal ba mu dëdd dèjà kooku kooku mbokk yi loolu lan la loolu lu ci nit di jàng kooku lan lañ ko def ñu ko doon mbugal keneen ki benn soldat bu libéré la Sénégal gii topp ci xale jigéen yi rek dafa ne moom dong moo dugg néegub góor xam nga am na ci góor yi ñoo xam ne yaakaar ne ñoom dong ñoo dugg néegub góor nee na mu tëdd guddi rek mu gént asamaan bi di taw waaye xam nga lu ko jaaxal asamaan bi ay birigu safara lay taw te nee na moom li ko jaaxal moom moom dong la birig yi di dal nee na fu mu daw dugg nit ñu fa fekk nit ñi nekk comme buy taw nit ñi ni ñuy dawee di dugg ci ay kër ak ay tabax ak ay bitig nee na moom fu mu bëgg a dugg rek ñu ne ko doo fi dugg doo fi dugg doo fi dugg nee na bu génnee affaire yi dal bëm bëm bëm bëm nee na mu mu daaw dugg ci benn tabax bu pareegul ñam fa fekk génne ko nee na bi ñu ko génnee benn bu ngand moo ne bëm ci kaw waaye ci kaw lal bi la yuuxu ah ne nii jabar ji ki mu tëddaloon ne ko lan la lan la ñu taal lamp yi mu naan nii gis nga naan noonu la ñuy mbugalee nit allah biir barzaq bu demee ba yowmal xiyaam nag ah xam nga ay gént la woon nag day dégg foofu la ko yàlla naan wa basarukal yowma hadid tey nag li la doon wax nga yaakaar ne ay léeb ak lëppoon la tey nag yaa ngi ni teg ci bët wa barazu lillahi wahidul qahaar tey ñëpp jàkkaar la noog yàlla mbir mi leer kon mbugalu mbàmmeel danañ ko jàng tey mbokki jullit yi muy lu am lu sax ñetteel mooy ahlu laan ahlu naar baaduhum baada bu ñu demee ba àllaaxira ñi yàlla nattu ñu dugg safara dañ fay nekk di xeex di xuloo ku daje kenn rek poñe ko kurpeñ yi commencé waaw karaata yi commencé mbëkkante yi commencé lu tax lii yëpp yow la yaa ma woowoon ci lii yaa ma jaarale woon fii yow laa àndaloon moo tax dañuy rëbbante seen biir baaduhum ala baad is kaana kullu waahidin sabab fi adabil axar kenn ku nekk yow yaay ki sabab ñu mbugal sa morom waaw moo tax ku fi ku fi topp woote bu la neex lu la neex nga dégg rek ñu naan na na xumb te dagan wala koo xam ne ay lekk rek la bëgg ay lekk ay mbalka boisson ak ay robinet caaki rek ay nangam nangam bu la teree nga bàyyi yàlla nga bàyyi diinim ji ba nga dem ci loolu ba yowmal qiyaam yaa ngi ña la ko doon jox ngeen lekk da ngeen poñante allahu akbar moo tax yowmal qiyaam yàlla day sampal iblis benn benn minbar pujum iblis def discours ci kanamu jaamam yi ci kanamu ñu ko doon topp iblis lan la leen di wax iblis lan lay wax gaayam yi ah seytaane day wax ba ba yàlla atte mbir mi ba pare lamma qudiyal amru fe atte na njeex na lan lay wax yàlla wax na leen dëgg inna allaha waadakum yàlla waxoon na leen dëgg dig leen mu ne mu ngi nii man tamit ma dig leen ngeen bàyyi yàlla ngeen topp ma tey nag mbir maa ngi nii mënuma leen a musal mun leen maa musal te nag attention attention bu ma kenn iblis yow ah laata lu mu nii ah ma kenn yedd ah naan ma yow iblis fi nga mujj ak ñëw ak yow yow naa nga am bu ma kenn wax loolu ma ne yedd leen seen bopp gis nga xoolal nag te xam nga foofu lu tax muy garaaw mooy amatul lay parce que biir safara la de la la des te li fi mu nekk mbir mi leer na naññi ci nit ñi ku nekk xam nga li nga nekk dëgg la wala du dëgg ku nekk xam nga ko xam ngeen booy boobu nga xam ne ndeysaan dafa doon génn ci yàlla yàlla yooyu bu muy génn bi mu waxee ki mu ki ko fa yóbboon man damay génn de lii du dëgg kooku da ko ne ah boo bëggee jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bañ ko la nax ah demal ci ahlu sunna yi demal ñooñ donc ñoo fi nekk ci dëgg ñun ñi ñëpp dañuy jaaxal maa ngi vidéo bi fii sama portable allahu akbar mbokk yi ñeenteel mooy bayaanu jaza al mukazibin bi ayatillah yàlla wax na leeral na lan lay fay ñi weddi alxuraanam ji ñi ko weddi ëllëg loolu leer na nañ yàlla wax na ñooñu lan la leen di fay fan lay jaar ak ñoom lan la leen di defal ñoom ak ñi ngand ngandlu ah mooy lan tere leen dugg aljanna ñoom ak tooñkat yi ñaari nit a ngi nii duñ dugg àjjana ëllëg ku doon tooñ ak ku weddi yàlla weddi alxuraanam bii aayam yi nga weddi ko ñaar ñii duñ dugg àjjana loolu rek doy na mbugal kon ci tënk aaya yi nga xam ne moom la ñuy jël tey ci tënk bu gàtt lii mooy tomb yi nga xam ne moom lañ ciy jëlee sunu borom subhanahu wa taala mu ne ginnaaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yàlla mu ne faman adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba aw kadhaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab faman azlam yàlla nee na kenn dàquta tooñ mimman ci waa ji nga xam ne iftara alallah dafa fenal yàlla kuy fenal yàlla kenn dàqulaa tooñ te loolu moo am tey fenal yàlla yàllaa wax lii yàlla nangu na lii yàllaa ñu wax nañ def lii yàllaa ma feeñu damaa gis yàlla waxuma sax yonent bi léegi moom yonent bi fee lañ ko teg te yàlla nee na kenn dàquta tooñ fa man azlam kenn dàquta tooñ kan lan mooy azulmu tooñ mooy lan tooñ gi di yàlla wax moom mooy lan faman azlamu lan mooy azulmu mooy def jaamu yàlla foo ko warul def loolu mooy tooñ da ngaa war a topp yàlla yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo la ne jaamu ma nga bàyyi koo jaamu jaamu gi nga ko war a jaamu nga dem def ko feneen loolu mooy tooñ wala yaram yàlla mu ne kenn dàquta tooñ waa joo xam ne dafa fenal yàlla mu ne yàlla wax na te yàlla waxul wadu shay fi gayri mawdii loolu mooy azulm loolu moo tax al mushrik kaana zalim bu fekkente ne tooñ mooy nga def loo xam ne fi nga ko def waroo ko fa woon def loolu mooy tooñ moo tax bokkaale kat tooñ kat la loolu moo tax ci suratu luqmaan luqmaan ba mu yeddu juróom bi mu ne ko wa inna shirka la zulmun azim gis nga allahu akbar looloo tax al mushrik zalim li annahu wada al ibada fi gayri mawdiiha ndax dafa jël jaamu yàlla mu dem defal ko keneen loolu moo tax mu tooñ yàlla ndax jaamu moom yàllaa ko moom kenn moonu kenn moomu ku dul yàlla moo tax sunu borom ne kenn dàquta tooñ koo xam ne dafa fenal yàlla aw kazzaba bi aayaati wala aaya yàlla yi ci boppam alquraanu yàlla bi moom la weddi mu ne lii du dara ah lii di ràkkal comme ni ngeen koy déggee tey alquraan ràkkal la nal nañ ko bu yàgg diw gi yóbbu nañ ko li fi des cox la cox mooy loolu xar yi di lekk ràkkal xam ngeen ko kan ci yéen mooy añe ràkkal kan ci ñu fi mooy reere ràkkal imagine lu toll ne alxuraan ay nit gëm ne téere bii ràkkal la loolu jullit gëm ko jotoon naa benn audio bu ma benn mbokk yónnee woon fii mu ngi ci jàkka ji toog waa ji naan ni alxuraan gëne silaabeer xam ngeen silaabeer silaabeer xam ngeen waa ji ne ni ko alxuraan gëne noonu la seen téere yi gëne alxuraan silaabeer dana nit jullit dina jël alxuraan di ko takkaleeg silaabeer xanaa sax bu ñu ne woon alxuraan ni mu gënee sahihul buxaari sax buxaari sax wala muslim ndax lan loolu lan la loolu waxu yonent bi la waaye xoolal silaabeer ñu romb yooyu yëpp ñëw ba ci silaabeer silaabeer lan la ñu koy nattaleeg alxuraan moo tax réew mii li waa ji waxoon rek man de wallaahi bu ma amoon fu ma jëm dinaa jël samay bagage man ak sama njaboot ñu daw loolu waa ji waxoon billahi jot na Sénégal ku mun a daw daw fii liñ fii wax xam nga yeneen dëkk yi nga xam ne sax ay yéeféer lañ ay France ak ay Amérique ñooñu da ngay xam ne ñii ay yéeféer lañ waaye fii ay jullit ngay gis ñu koy def ay jullit yu réer yu sànq yu alku yoo xam ne moo tax ma leen di wax yenn saa yi fii yenn laaj yi da ngeen koy moytu di ko laaj ci mbooloo tam nga laaj ko fenn nga gis ku yëkkati loo xam ne la waaw waaw comme nga ne fi gis ndax mos ngeen gis ku gën Seydina Muhammad yooyu noonu bu yëba ngeen mooy dindiku de wala ndax gën gis ngeen fi naag léegi nga gis ko ne ah kay mooy diw te dara du ko ci fekk nga dégg léegi am ku yuuxu ah ah déggu leen fi benn kilifa mu ne yowmal xiyaam bu yàlla taxawee ni yonent bi taxaw diw taxaw ni man damay romb yàlla ak yonent bi dem fee déggu leen ko déggu leen ko waaw kon kay bu ma kenn weddi te loolu bu ko xale bu ndaw waxoon sax ay kilifa moo ko wax bu mag su yàlla taxawee nii yonent bi taxaw nii diw taxaw fee man ci diw laa jëm allahu akbar ah lu fi desati lan moo desati dara desatu fi nan yàlla jéggal rek te baal nu ulaayika ñii nga xam ne ñoom ñoo mel nii ñoo sànk ñoo weddi yàlla weddi aayem yi yanaaluhum nasibuhum wallahi danañ am seen wàll danañ am seen wàll ba mu doy sag dara du ci manqué yàlla dina leen ko matal ba mat kàpp minal kitaab ci téere bi kenn ci ñoom say mbir yàlla du ko neenal lépp la yàlla di teg fa mu ko war a teg nasibuhum maa quddira lahum fi kitaabil maqadir li leen yàlla nattal ci téere bi nga xam ne mooy téereb dogal ci mbugal yàlla nee na dinaa leen ko jox ba mu mat sëkk dara du ci manqué fil kitab fi kitabil maqadir ci téere bi nga xam ne fa la dogal nekk fa la ko yàlla def lim leen yàlla nar a mbugal ëllëg yàlla nee na dinaa leen ko teg nee na bu ma bu leen yàlla di mbugal nag hatta iza jaatuhum rusuluna ba sunuy ndaw dikkal leen mooy malakal mawti wa awaanu yàlla dafa am benn malaaka boo xam ne moom la chargé dee mooy rey ñëpp waaye malaaka boobu dafa am ñu mu àndal ñoo koy dimbali moom malakal mawt ñooñ la yàlla di giñ ci alquran naan wan naziaati xarqa ñooy buddi ruuxu yéeféer yi fa mbooloo lañ ñooñu am na ñeneen ñu yàlla naan wan nachitaati nachta ñooñ ñooy rocci lan mooy différence buddi ak rocci am na différence wala amul différence buddi ak rocci rocci mooy lan wëñ booy ñaw nga jël puso bi rek dugal takk ko cat wëñ bi nga boros boros boros boros boros ba yaakaar ne pare na nga xëcc nu muy def day rocceeku génn nga oh oh nga découragé ngay commencé waat à zéro loolu mooy rocc wala jigéen buy mooñ muy li muy mooñ ba caagu mu gis ci kawar nu muy def da koy rocc da koy jàpp nii ndànk seppi ko teg ko nee ndax loolu dafa difficile rocc wëñ bay doon ñaw ak dindi wëñ kawar gi ci sunguf si ndax loolu am na coono ok buddi nag te kenn ci ñun fii bu sa bëñ doon metti wala mettiwul sax ñu ne la ngaangal nga ngaang rek ñu jël tanaaj képp bëñ bi ne dañ koy dindi yaakaar naa bu waa ji xëccee da nga koy topp naa nii di dem ndax boo ko toppul musiba am loolu mooy buddi ah wala wala ñu jàpp sa baaraam bii dama musa seetaan benn film benn góor jigéen nekk ci film bi góor jigéen bi daa jël kanam gi yëpp def ko ay jaaro def ci tuñ yi tuñ yi tuñ yi rek ci kaw ak ci suuf da koy def ay jaaro ba mu fees waaye bu xamoon dootu ko defati bi ko bànd bu mag bi jàppee bu ko laaj mu wax mu bañ waa ji tanaaj la jël day képp benn jaaro ne ko di nga wax wala doo wax mu hésité waa ji buddi teg keppaat beneen ma ne ko di nga wax de góor jigéen boobu nekk na góor keroog de waa ji képp ne ko di nga wax wala doo wax mu ne du wax waa ji buddi waaye balaa gémmiñ ngi jeex wax na de waaw moo tax gis nga buddi noonu la mel buddi baaxul dafa metti yéeféer yi noonu la yàlla di buddee seen ruu moo tax gis nga baat bi wan naziaati xarqa même baat bi sax dégg nga niñ koy jàngee xoolal ñeneen ñi rocc mu ne wan naashitooti nashto cortège u malaaka lañ ñooy ànd ak malakal mawt bu ñëwee fee lay taxaw malaaka bu njëkk bi ñëw ne la yaa abdallah tuftu laka mashaariqa al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata ma in tashrabuha jaamu yàlla bi bu dee góor nga bu dee jigéen mu ne la yaa amatallah texte yi gudd la almuhimu ñu xam ne ñoom mbooloo lañ ñooy ànd ak malakal mawt moom ña la yàlla naa ne hatta iza jaatuhum rusuluna ba samay ndaw dikkal ko mu ne li yàlla na nangu nangu di wax fii nam di wax namm ci aaya bi du ay yonante de nee na almuraadu bihim ñi yàlla namm ci rusuluna mooy malakal mawti wa awaanuhu malaakam dee la ak ñi koy dimbali nee na yata waffat yata waffawnahum danañ leen faat danañ leen rey yàlla wax ne ko qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum aynama takunu yudrikumul mawt falawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin tubsirun ñu ngi noonu gaa yaa ngoog wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun man yàlla maa leen gën a jege waa ji kii di war a dee tey kii tëdd fii ngeen wër ko man yàlla ma nee na maa leen ko gën a jege te waaye gisu leen ma yatawafawnahum malaaka yee leen di faat qaalu ayna ma kuntum waaw yéen fu ngeen nekkoon lu ngeen doon def ayna ma kuntum tad'una min dunillah ana ñooñu ngeen doon woo ca àdduna nag bàyyi yàlla naan ñooñu la ñooy ay ngand ñoo mën ana ñu bi malaaka bi ñëwee nag fekk waa ji di waaj a dee malaaka bi di xëcc ruu bi xam nga lu ko malaaka bi di wax ah ayna quwwatuka ana sa doole ayna maaluk ana sa alal ayna rihuka ana sa xet maa xayyaraka yow yaa ngi changé di yaa ngi commencé di xeeñ doo dégg yenn saa yi bu ñuy sang ci ci morgue ñu ne indi leen benn ànd ngeen def ci gooy du ngeen koy dégg xam ngeen luñ ci namm néew bi day xeeñ wala am luy génn ci moom loolu day changé odeur morgue bi léegi nag bu ñu ci defee gowe saxaar si cuuraay bi du sonal ñi sang ndeysaan gis ngeen dee ndeysaan ak a gaaw dañuy yëkkati loxo mu daanu yëkkati tànk mu daanu yàlla mu ne wal tafati saaqu bi saaq lu ñu yëkkati mu daanu gémmiñ ŋaaŋ na biir ngand na bët buqeeku na ah allahu akbar wal tafati saaqu bi saaq lu xew yàlla mu ne ila rabbika yawma isinil masaaq tey yàlla rek doomu aadama fu muy mujjee war na jaamu yàlla war naa góorgóorlu sunu borom ne ne malaaka yi ñooy wax de qaalu malaaka yi ne ayna ma kuntum tad'una min dunillah waa ñi ngeen doon woo bàyyi yàlla ñi ngeen doon jaamu bàyyi yàlla ñooñu ana ñu tey ndeysaan nga dégg qaalu dallu anna eh waaye ñun gisuñu leen waaye ñooñu nekk ñu fi gis nga de yaa ngi doon woo sëriñ bi yaa sëriñ yaa seex yaa sàmba yaa moodu malaaka yi ne la anamu nga ne nekk fi te nga woon woon yàlla qaalu dallu anna ñooñu nekk ñu fi sànku nañ gisuñu leen ah pourtant ñooñu waroon nañ fee nekk yéen yéen a leen toppoon yéen a leen yéen a leen nu mu tuddati ngemboon ne ñoom ñoo mën yàlla léegi nag yéen a ngi nii di dee ana ñooñu du ngeen leen woo ndeysaan yenn saa yi ñu daw woo docteur bi mu ñëw indi ay loolu ngeen di wax sammaa ni ngeen koy wax ci tubaab loolu docteur yi dugal seen nopp yi te di di passé visite di xool kër bi di xool ah docteur bi ñëw dugal déglu teg teg teg teg xool xool jël li muy nattee tàngaay bi température keppal ko ci poqtaan bi xool wi cax daan ne c'est trop tard de non ça y est ça y est ça y est ñu ne déedéet déedéet docteur mënu dara damay ngeen woy sëriñ bi mu ñëw raay bopp bi ayatul kursi yi qul wallahu qul yàlla kafirun yàlla mu ne dara kii wa zanna annahu lfiraq kii leer na ko ne tey day dee dara gisoo bi leen malaaka yi jàppee di leen rey ne leen woo leen ñi ngeen doon yaakaar te duñ yàlla anañu qaalu dallu anna ñooñu réer réer nañ daw nañ sànku nañ nekkuñu fii ndeysaan yàlla mu ne wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kafirin ñu ngi ni tëdd tey di dee waaye wa shahidu seede nañ seen bopp balaa ñuy dee wa shahidu seede nañ ala anfusihim seen bopp annahum ñoom ñii tey di dee kaanu nekkoon nañ kafirin ay yéefir topp nu woon yàlla lii moom dañ koy wax ni amul sax commentaire fa leer nañ yéefir lañ woon topp ñu woon yàlla ay nit lañ doon jaamu ay bàmmeel di tëbb ay xeer soo waxee ñu naan la da ngeen di diingat da ngeen di da ngeen di da ngeen di da ngeen di bàyyi texte yàlla yi bàyyi alquran bàyyi sunna koo wax mu naan nangam nangam xoolal tey diine bi diine pëccëxoo ku nekk lu la neex def waaw ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj dëggat di tëgg ba fajar jot di fecc kese waaw allahu akbar rek di tëgg rek da ngay gis yenn saa yi damay déglu benn way bu ñuy way minuit ba 5 heures du matin benn way kese la benn way rek ñooñu moom la ku àndal ki ñu àndalu la neex la rëng rëng ba 5 heures benn way ba 5 heures benn way kese ñaa ngi fecc gaa yi ngi tëgg gaa yi ngi la ilaha illa anta subhanak sa yaram day daw wallahi alazim sa yaram day daw day daw day sa sa xol bi day jeex nga gis nag ndeysaan kenn ye- ñëw fajar te di di nelaw yeewu midi waaw démb maa ngi fanaan ci kii yi quoi waaw dama ci jàng yi laa fanaan mel ni dafa def dafa def lu rëy waaw man démb ci jàng yi laa fanaan mais démb booy jàng yi non allahu akbar kii fanaan ci jàng yi ak ki fanaan ci xiyaamul layli ci sijaadaam yéen yaakaar ne ko ëpp tiyaaba hmm? ki fanaane jàng alquran ya ayuha almuzammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi warattil alqurana wa kanu qalilan min alleyli ma yahjaun alladina yabituna li rabbihim sujjadan yaa kooku ngeen nga fa ne ngeen tolloo yow nga fanaan ci ay sabar kii fanaan ci sujjóot ci kanamu boroomam nga fa ne yaa ngi moom di ngeen buuxante ëllëg buntu àjjana te li garaaw xolal kee fanaan ci sabar bi mu ëpp confiance kii fanaan ci jàkka ji dinaa fi la kële moo gën a buñ ne woon léegi àjjana mu ne noo booy xaaral ba ma dugg ba pare moom moo la gën a dëgër fit sunu borom nee na qaala mu ne leen udxulu dugg leen fii umamin ci xeet woo xam ne qad xalat wéy nañ min qablikum ñoo leen fi jiitu woon min al jinn wal ins fi naar yéen ñëpp dugg leen safara udxulu dugg leen dem leen ngeen bokki fii umamin ci xeet yële nga xam ne passé woon na ñoo leen fi jiitu woon min qablikum ñoo leen fi njëkkoon yéen ñii amoon na ci ay jinne min al jinn wal ins yéen groupe yooyu yëpp dinaa leen boole tey fi naar yi ci biir safara yàlla mu ne kullama daxalat umma saa yu benn xeet duggee laanat uxtaha mu mu rëbb beneen xeet bi ko jiitu billaay yéen yéen ay musiba yéen a ñu dugal ci lii ndax yéen a ñëw suñu ginnaaw bàyyi fa loo xam ne ñun bi ñu ñëwee yéen lan topp ndekk yéen yàlla ngeen gis nga saa yu benn xeet duggee rek rëbb beneen xeet bi safara noonu la génération bu ñëw day rëbb beneen génération bi ndax danaan génération bi jiitu yaa fi bàyyiwul lu leer lu baax loo xam ne toppoon naa ko ba tey ma sànku topp loolu ndeke du dëgg gis nga texte yi leer na de ñun ñi ñoo ko bañ a dégg waaye lii leer na nañ fi mu nekk Sénégal li ñi fi sànk lu leen sànk li fi génération bi passé bàyyi moo leen sànk nii saa yu ñoo ñu duggee safara danañ xas ñi leen jiitu woon wala lii du alxuraan yàlla nee na kulla qaala udxulu fi umamin qad xalat min qablikum min al jinn wal ins fi nnaar mu ne kullama daxalat umma laanat uxtaha noonu rek la ñuy def ku dugg xas sa morom ku dugg xas sa morom xatta iza daraku fiha ba ñu daje fa nag ñoom ñëpp léegi amatul kuy dugg léegi nag ñëpp dugg nañ ba mu jeex daje nañ fa nag jamian ñoom ñëpp qaalat uxraahum li awwalihim ñi mujj ñi daa di wax ñu njëkk ña rabbana haulaai dal haulaai adalluna yow yàlla ñu mujj ñi génération bi mujj dugg safara ñooy naan yàlla ñu njëkk ñii ñii ñii ñii ñii suñu mag ñii ñoo ñu réeral ñoo ngi nii dóor leen ba ñuy bëgg a dee allahu akbar ndeysaan haulaai adalluna faatihim adaban di afayni yow yàlla ñii ñoo ñu réeral li ñu lay ñaan tey yow yàlla rabbana yow sunu borom ñii faatihim adaban nang leen indil mbugal moo xam ne di fay ni ñaari yoon nga leen di mbugal mi nan naari ci safara yàlla ne leen xawma ñoom xawma yéen qaala li kullin di'fun kenn ku nekk danaa ko ñamal li ma ko war a ñamal kenn ku nekk di nga am sa genn wàllu di'f di nga am lu ma la daggal ci mbugal walakin la taalamuuna waaye yéen du ngeen xam allahu akbar mu ne wa qaalat ulaahum li uxraahum ñu njëkk ña ñan ñoo waxoon sànq léegi nag ñu njëkk ñi ñu ngi tontu ñu njëkk ñi ñu ne yow yàlla ñu mujj ñii fa ma kaana lakum alayna min fadlin ñun ak yéen a yema naan ñun yàlla nanu mbugal deux fois ñun ak yéen ñooy yem kepp ndax yéen ñii sax yéen yéen yéen ñun nan lañ leen réerale yéen ñun ak yéen gisante wunu yéen ngeen bëgg a ñëw fii tey naan gis nga moo tax wax naa leen sànq bi safara dañuy xuloo safara ay poñante kese la di nga gis ku yenu kilifaam ba ci kaw ni ko ndul ci suuf poñe ko di ko dóor ay crochet wallahi lazim safara yow man xiyaam ëllëg ay xeex la ba man kay Malick laa yërëm ndeysaan la hawla wala quwata illa billah at bu coow li bëree Malick danaan leen noppi leen bu leen waxatee ak man man lañ ci yàlla musal ñu ne fa ma kaana lakum alayna min fadlin amul leen lenn tey lu ngeen ñu gën a ñun ak yéen a yem fa zuuqul adaba bi ma kuntum taksimuun ñam leen mbugal mi comme ñun nuñ ko ñemee ndax yéen yéen a ko fàggu woon yàlla ne inna alladina gaañ a nga xam ne déglu leen aaya bi bu ñëw bu baax kazzabu dañoo weddi bi ayatina sama aaya yi la ilaha illa allah inna allazina kazzabu bi ayatina ñi nga xam ne dañoo weddi sama téere yi weddi sama aaya yi sama alquran bi yemuñ ci waaye wastakbaru ñu ngand ngandlu anha ci aaya yi laa tufattahu lahum abwaabu sama kenn du leen ubbil buntu asamaan yërmande mukk wala yadxuluna aljanna duñ dugg ajjana xatta yalijal jamal fi sammil xiyaat ba gëleem dugg ci bën bënu puso xatta yalijal jamal fi sammil xiyaat xam ngeen bën bënu puso xam ngeen puso bara andi mesalal xam ngeen puso fan la wëñ bi di nekk bën bën boobu est ce que gëléem xëj na ci yàlla nee na ñii duñ dugg safa duñ dugg àjjana mukk lu dul gëléem dugg ci bën bënu puso kon loolu lu muy tekki duñ dugg àjjana hatta yalijal jamal fi sammil xiyaat fa kazalika naka nii najzi laay faye almujrimina kàccoor yi sayid xawaa nee na bu ngeen di jàng alxuraan bàyyi leen xel aaye fu muy jeexee yàlla nee na kàccoor yi nii laa leen di fayee kon kuy kàccoor lu lay war tuub dëpp wa kazalika najzil mujrimin yàlla yemu ci de xoolal yemu ci de mu ne lahum am nañu ci biir safara min jahannama yàlla nee na ñooñu ma dugal sa jahannama am nañ fa mihaadun ay lal wa min fawqihim gawaas ca kaw lal ya am nay kubéer mooy lan ay muurukaay safara dong nga dugg fa doy na waaye ñu teg la ci lal ba pare muur la ab dara bu jahannama yàlla mu ne wa kazalika najzi zalimin sànq lan la waxoon wa kazalika fii mu ne wa kazalika najzi zalimina tooñkat yi lii laa leen di fay chaque jour sëriñ bi nee na aaye fu muy jeexee na ngeen ko bàyyi xel ñaar yëpp benn baaxu ci ñee la leen yàlla fay baaxul ñii li leen yàlla fay baaxul te lu ko waral mooy weddi yàlla weddi ay aayeem di ngand ngandulu di tëb di cëppi cëppi ba malakal mawti ne la xaas nga naan xaaral ma tuub fekk c'est trop tard yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.